ayca première demi-finale poids léger arbitre ba sifflé na ko diggante fils de Jordan ak ki nga xam ne moom mooy Jamenda Gandiaye Jamenda Gandiaye moom lañ jàkkaar lool fils de Jordan moo ñu woon gannaaw fii ci Djilass lay xewee lamb Ndindy Fall production wala Ndindy Fall TV moom moo fi woote woon tegal mbëri un million cinq cent poids léger cinq cent mille poids di bëggee képp kuy bëggee Zilo TV rawatina waa 100 pour cent Zilo TV maa ngi leen di siyaar bëggee naa leen jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Paapol. arbitre jox na leen ñoom ñaar ku ne avertissement. Fils de Jordan Jammeh Ndakanja arbitre sifflé waat na. ku ci abonné gul laalal kolos notification bi. jàkkaarloog Modou Faye waaye jàkkaarloog ñun ñëpp waaye ñu gërëm ñu fi jaar yëpp sant gi yeeg ak ku mel ni Ismaïla Diallo waaye fii la seen production l'enfant séeréer du village leen di gërëm bu baax ci jàppale bi waaye di gërëm bu baax la table technique ndax lamb rek dafa ànd ak loi loi bi lamb teg CNG ko teg jox ko CRG ñu indi ko nag ci département yeeg arrondissement yeeg fépp jox fi ci commune doxal làmb ndax ñëpp mën cee wër na ko ndomb. Jammeh Jammeh ndax dañ jaay Jordan fils Jordan maa dañ wër ndomb belanti wër na jàmbe nag gàncax yi ndomb de jàmbe maa daj ca génn Jordan Jambe Ndag

mi-temps dañuy dem pause. Jamil Daka Ndiaye final Ijat jelas, Guy Gilas. Ada ini. Kita